initiative bi waa député passé fi bëgg a dugal donc euh, pour annuler modification yi yéen waa PDS ça ne vous ébranle pas. non ah, xam nga dama bëggoon. Euh, parce que dama bëggoon nga wax ci loolu sa avis. après nag ñu xuus ci li nga xam ne. mooy mooy la question en fait parce que dafa mujj moo tax. c'est la toute dernière actualité. waaw euh, dëgg la mais mhm. xam nga dama bëgg aussi. Mhm. comme xam nga du débat nii. mais yow la ak man. Mhm. dama bëgg Sénégalais yi mën a gis lu ma wax. fan laa ko fonde mhm, dinañ si dinaa ñëw ci occasion bi incha allah waaw. Mhm. donc pour effectivement dinaa dellusiwaat. ci loolu mais ma ñëw. Mhm. comme yow da nga bëgg ñu leeral. lool ñu évacuer ko après jàll ci la. xam nga euh, lu waa député Pastef def. boo ko xoolee euh, le parti démocratique sénégalais amul ci soxla xam nga lan moo tax. ñun soxaluñu di ndax du sunu problème li tax du sunu problème mooy dafa am une loi qui est votée la république du Sénégal. à organiser son fonctionnement. mu ne am na ci kaw ki nga xam ne lépp loo xam ne def nañ ko fi moom mooy seet ndax loolu yenn na maanaa selon sunu constitution wala déet muy le conseil constitutionnel. foofu lañ ko yóbbu. Mhm. ñetti mbir rek mën naa ko rappeler. yow aussi dafa naa fàtte woo loolu à la sortie de deux mille dix-neuf bu ñu instauré le parrainage. Mhm. ak defe naa encore la position du président de la république mën na jël yenn décision yi par décret defoon nañ ci ay recours le conseil constitutionnel yow xam nga ni le conseil constitutionnel a déjà dit que parrainage mën naa nekk mhm. da wax na ko est-ce que conseil constitutionnel mën naa wax parrainage malgré même que ay arrêt de la cour de la CEDEAO ak mhm. yooyu mhm. waxoon nañ ni parrainage bi baaxul mais ñoom malgré tout ils ont dit que baax na mhm. ils l'ont accepté est-ce que ñooñu dinañ ñëwaat ba tey ne ñun kat lu ñu waxoon dañ ci juumoon ndax li tax mu wax la lool te ñoom xam nga ay point yu bëri lañu ñu cité ci seen recours bi lu mel noonu mu ngi ci nee ñu xaw ma nu ñu defee système mu parrainage bi euh, indiwul égalité ak yooyu loolu boo ko joxee le conseil constitutionnel te conseil constitutionnel moo waxoon ni parrainage bi baax na xam nga conseil constitutionnel du weddi boppam mënta weddi boppam mhm. dafa am au minimum mënoon naa la citer ñetti point yoo xam ne mhm. conseil constitutionnel adduna ci ba pare te du weddi boppam mhm. moo tax loolu wax dëgg soxalul euh, parti démocratique d'accord léegi léegi kii la rek yëngu kii nan la sorte jeu la ah.